moi qui accepte de la prendre et de dire que elle doit parler si jàppale bi nga doon jàppale Adji Sarr amoo si ay regret maintenant euh, xam nga lu tax duma ci am regret mhm. parce que c'est un combat de principe mhm. du moom laa doon xeexal ah ah. en réalité sama réew laa doon xeexal à travers mhm. le fait que les femmes n'avaient pas le droit de vivre un déni de justice aussi flagrant lié à la dimension de l'homme incriminés. Ça, ça, aurait été fatal mmh. pour les droits des femmes, mmh. pour la, la, liberté aussi. Mmh. Euh, et les droits yi nga xam ne constitution jox na ko képp koo xam ne sénégalais la. am nga droit mu la tooñee waay. moo jàppee dañ la bu doon kuy taxawaalu. boog ñi nekk ci mbedd bi di fayeeku mmh. même bu doon ku mel noonu la. bu dundee li Adji Sarr dund. man damay ñëw défendre ko. parce que même kooku noonu. Mhm. même ki ñi ñuy woowee. nitu guddi. Mhm. jigéenu guddi. ñooñu ba tey am nañu droit wax ni diw yegg na ci mante te nangu. Mhm. du woon sama coobare. alors donc le combat c'était un combat de principe. il y avait certes un moment un aspect affection euh, émotionnel. parce que xale la gis naa fragilité sociale mu mu ma. euh, je vais dire, excusez-moi, mu touché mais au-delà de cela je suis une personne. qui a toujours qui s'est toujours battue pour être digne. pour mais rester digne ñenn ñi di victime système bi paase la. victime la woon euh, est une on peut même dire double victime. Mm-hmm. le système n'a jamais été là pour Adji ah le Sénégal et il y a beaucoup de Adji je, je peux me considérer une des, une des enfants du Sénégal. yi nga xam ne Sénégal n'a jamais vraiment été là quand ils avaient besoin looloo tax ma yërëmoon ko parce que quand j'avais besoin j'avais personne et j'avais en face de moi des gens forts ñu am doole wala ñu am ay appui mais man je devais euh, lépp je trouve maanaam yoon bi gën a métti laa doon jaar mais je regrette pas parce que ça m'a ça fait que en fait je ne dépends de personne et je n'ai peur de personne je ne lèche les bottes je n'essuie les bottes et je ne porte de sac de personne mm-hmm. yaa ngi comprendre looloo tax aussi Sénégal xëy na du fi mës a euh, euh, wax lan la da nga bëgg nga dund li mu dund wala da nga am non comme li mu dund de confiance abus exploitation mm. ou bien tentative euh, si tu ne si tu ne si tu n'acceptes pas. Mhm. tu deviens une cible. dañ lay dañ lay. yàq buntu xatal dañ lay tëjal ay bunt lu la li nga yelloon par tes résultats scolaires ou universitaires duñ la ko jox. et je peux okay. donner des exemples. d'accord des bourses yoo xam ni bourse man dama mhm. koy wax traumatisme la ci man. Mhm. yoo xam ni peut-être que si j'avais accepté. Mm Euh, le droit de cuissage, j'aurais été aujourd'hui docteur. Mhm. Parce que j'avais les compétences, mhm. les capacités, mais j'avais pas la flexibilité, j'avais pas les jambes trop accueillantes. On veut t'obliger à ce que nga am les jambes trop accueillantes. Mhm. Que tu, as, que tu aies une hospitalité au niveau de, te, de, de, euh, de, tes jambes. Si tu n'es pas comme ça au Sénégal, euh, en général, tu vas le calvaire. Ouais. C'est le calvaire ou bien mm-hmm. tu te limites mm-hmm. à ne pas avoir des ambitions de de bien-être. Mm-hmm. te man comme dama bëggoon man réaliser am li une certaine façon de vivre. je suis partie. quand j'ai vu Adji je me suis vue en elle. comprendre ni ma ni ma ni ma moom dama gis ni kii fi ma jaar la la la xëy na amul outil. gànnaay bu mu xeexee mieux man gànnaay gi ma am mooy ni sama yaay dafa nekk en vie mhm. sœurs yi yar ma ma jaar école sœur sœurs yi ak làbb yi yar ma donc xëy na li ma mun a moytu mun ko muñ mhm. moom munu ko parce que mujjee na dem Sud Beauté mhm. man su doon xëy na aw ma woon yaay jur taxaw rek di wax ba def la lavage de servo peut-être que aussi doon naa wut benn genre Sud Beauté pour faciliter sama yoon mais donc ça C'est ce que j'avais compris à l'époque. Et c'est, je veux qu'on dissocie ça de la personnalité de l'individu, de la victime, qui après ça, après le fait d'être une double victime, peut faire des choix de vie ouais. ou faire des erreurs liées à son âge mhm. au fait qu'elle n'a pas un niveau d'études élevé pour comprendre certaines choses mhm. et le fait qu'elle a toujours été utilisée mhm. ba dootul xamati kan moo ñëw te mën la ci yoon bu baax bi Euh, même bu fekkee ni c'est avec moins d'argent mais un coaching elle l'avait avec moi ba ma koy coacher doo ko gis ci mbedd doo ko gis mu taxawal doo ko dégg dans des frasques ma ko coacher tul c'est parti en couille c'est allé euh, tous les sens mais, euh, mm-hmm. mais, elle assume et je mm-hmm. pense qu'elle est heureuse euh, dans ces conditions là donc ma mission accomplie je en tout cas euh, mais xamoo daal fu mu nekk si si. ko jant bi tiim daal ça m'intéresse même pas. parce que sama mission du loolu. sama mission c'était de lui donner de la voix. Mm-hmm. qu'elle ait droit à un procès. que qu'on qu'on rende tellement flagrant. Mm-hmm. à la face du monde. que état amul droit. neenal ko. Mm-hmm. ci procès. mu bañ a am procès parce que elle vient de nulle part elle n'est nobody elle est la fille de personne tu vois. ce serait une injustice assez. Mhm. kontaan nañ ci ci waxtaan bi. merci beaucoup yaa ngi naan da nga bëri wax bëri wax dañu dañu gëj a gisante et puis dafa yàgg. <laughs> moom bon. ça fait longtemps qu'on n'a pas. J'avais beaucoup de choses à dire aussi. Mmh, tu as remarqué non. gis nga ni da nga wax daal ah, Sénégalais <laughs> maa ngi nuyu ñëpp. Uh-huh. vraiment di remercier pour invitation bi. Mm-hmm. Euh, gis nga je suis très heureuse qu'il y ait eu. Euh, ce changement de régime mm-hmm. et que Sénégal am une nouvelle mm-hmm. possibilité mm-hmm. c'est une nouvelle possibilité espérons que mu matérialiser leur euh, rêve ak seen euh, aspiration mais bëgg naa nga def ñaan ci seen terrain nga xam nga fële lañ doon kii léegi ñu ngi fii naa nga ñaanal non dama leen di dénk sama ange gardien muy euh, deux cinq maa ngi ñaan donc ci seen barke mhm. muy pape Jean Paul II saint mhm. pape Jean Paul II mhm. c'est c'est moom laa gëm ni moom moo may guidé moo may aar keneen ki muy tudd Padre Pio donc maa ngi leen di ñaan ñu ñu aar seen teranga wàcce xéwal wàcce barke wàcce fexe ba Saint-Esprit accompagner leen et l'abondance et la prospérité euh, soit le lot de tous ceux qui habitent, mmh. tous qui travaillent ici, vos familles, vos enfants mmh. et tous ceux que vous rencontrerez. benn seeni bénédiction yàlla wàcc ci kër gi. waaw vraiment Ouzin <laughs> je te garde dans mes prières naa la taalal bougie mm-hmm. et maa ngi lay dénk euh, Pape Jean Paul II. Mm-hmm. na nga fàttaliku saa yoo ñaanee ba pare. Mm-hmm. loo bëgg rek. dénk ko Pape Jean Paul II et tu verras. Mhm. tu m'en diras des nouvelles. inchallah il fait des miracles. Mhm. et mun naa wax ni. par exemple je loo xam ne man moom laa considéré que moom moom mu ko defal euh, xam nga fii euh, jigéen yu ñuul dañuy am li tudd myome. Mhm. myome xañ na jigéen yu bëri amuñu doom. man dama toog am myome pendant longtemps damay am fausse couche. ma sonn benn moment ma ni papa Jean Paul II je veux que nga régler sama problème je le priais ma ni ko c'est toi qui vas régler mon problème. Mhm. Saint-Père man c'est mon papa parce que. dañ ko bindoon lettre. Mhm. ba ñu nekk xale. mu mhm. tontu ñu. donc relation boobu foofu la juddoo. Euh, mais gis nga ba ma demee dama dem. dama sama docteur. en Allemagne la sama docteur. sama gynéco. dafa am ay injection yu ma waroon defal. traitement hormonal bu ñu ma waroon a defal. ba ma ñëwee jour bi ñu ma war a defal première piqûre bi jour boobu la ñu war defal xam nga boo yegsee dañ lay jëlal urine. Mhm. dañ lay jëlal sa urine. balaa mu lay xool. Mhm. mais damaa ñëw mu jël sama urine ñu indil ko test positif que j'étais enceinte. Mhm. mu ne ma dafa est-ce que da nga am sañ booy ñaan ma ne ko Pape Jean Paul II Karol Wojtyla mu ne ma kon sa ñaan nangu na mu ne ma le serpent a mordu noonu la ma ko waxee. nga am doom ma am doom mooy sama taaw mhm. donc li ma lay wax ni ci Pape jean de II mhm. c'est une réalité je te le confie mhm. et crois-le je pense que tu verras d'accord mais kontaan nañ trop trop. merci ci ñëw bi parce que déplacement bi. parce que c'était pas facile aussi parce que yaa ngi.